mais léegi sëriñ mm-hmm. boo nekkee jiite empire boo xam ni am na mille emplois directs mm-hmm. am quinze mille emplois indirects mm-hmm. am vingt mille salariés yor chambre de commerce yor foire internationale de Kaolack mais boo nekkee maire nooy def bon xam nga am yooyu dénkaane wala nooy def xam nga chambre bon li ma la wax rek benn bu ne dafa am directeur général la chambre de commerce moom yaakaar naa tey laay mujjee participer aux élection kooku moom je ne suis plus candidat aux prochaines élections la chambre de commerce moom yaakaar naa tey laay participer ci élection kooku moom je ne suis plus candidat aux prochaines élections la chambre de commerce moom yaakaar naa tey laay participer ci élection kooku moom je ne suis plus candidat aux prochaines élections mais quand même la chambre de commerce tey est tellement gérée par le secrétaire général ak le vice président pour vous doonee un exemple man chambre de commerce tey aw ma fa bureau man chambre de commerce du ma signé chèque mais les stratégies rek laay def l'efficace la même chose ah stratégie lay def ak wutal leen ay ay ay ay ay ay ay partenaires mais gis nga benn mbir benn at nga ciy liggéey mais bi ci des da koy bàyyi mu demal boppam te mu ngi demal boppam sans problème je pense que yow jaar nga ci ay entreprise ubbi nga ko teg ko après mu demal boppam su fekkoon tey dama naan dama bëgg maire yi dama bëgg député dama bëgg nangam mais dama toog ba nga xam ne nii man sama liggéey étable Abdou Diouf 99 ba ma recevoir dama ko ne ko man damay nekk toujours koo xam ne nii ci côté gouvernement sans réserve pour le développement économique du Sénégal gérer sama entreprise développement économique du Sénégal la def nañ lu bari comme li ma la wax def nañ waxuma def naa man rek mënu def mais man dama jàpp ne tey monde bi tey monde bi monde bi ku ko joxoon ma géré ko